Mhm. mais toi tu me regardes ñu nekk di ma xool nii kan moo mën a taxaw ne à un moment donné dans ta vie dina yàlla sàngul sutura fenn foo xam ne su ko nit génne woon. mu ñaaw mu ñaaw. Mhm. kan moo yoo xamante ni malgré que li ñu def naay su mais kan moo mën a taxaw ne yàlla sàngul sutura fenn ci ci ci côté boobu noonu mu nekkoon. wala ci côté leneen ak leneen wala ci côté lu pire sax yàlla sàng la ci sutura ñu kenn gisu ko te ay sœur la ñoo xamante ni est que tu sais que jigéen ñi nga xamante ni on va revenir tout le temps sur l'amour. Mm-hmm. jigéen day joxe lépp sans retenue mën moom mu def sax ba du xam après suba lan mooy nekk retombé yi. Mm-hmm. joxe lépp joxe lépp joxe li ñu teem joxe lépp. sa ça de des personnes mauvaises que si c'était loolu moom moo nekk ay per booy def nit bu mauvaise kon lépp kon kon ci nekk nit bu nekkee bon bon ci sa benn àdd yoon ci sa àdduna moom mooy tax mu tax sa la nit bu mhm. moom dañuy sàngal di sutura parce que yàlla moo ko sutura ñëpp moom xel yi laay su ko neexoon mu ne waxuma dafa mais c'est un terme dérange. su dee yàlla moo mën a xool terme bu mën a déranger. ba mhm. mën ko téye bañ ko épa bañ ko dugal si bopp nit ñi. asantumala mhm. nit ak nit morom donc le monde a ils ont pas encore compris et c'est ça que j'essaie de faire moi passer a des dafa am benn trait d'union nekk sama mhm. la xam su ma génnoon ci mbedd bi di dox nii day ñëw sama kanam ba jékki-jékki. oto bi ñëw sa ginnaaw gisoo. Mhm. di la bëgg dal dina am benn su la dalee ak suñ nekk bu la bu la lu metti dalee. Mhm. nga daanu wala yooyu dox ko si yàgg mhm. la dafa daal la dal alors que si nit lañ koy àttee. donc il faut plus de il faut plus d'amour boobu nit ñi di wax naan mooy loolu. man c'est ça this is the key of Bambey